ginnaaw ay weer a ngi ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fa nga xamante ni muy marché Sandaga xaalu ni mel muy li nga xamante ni mooy ñu salaat lii di marché boobu andil ko beneen xar kanam donte liggéey bi tàmbali na mooy li nga xamante ni mooy toj ko daal di koy defaraat waaye teewul am na ay coow yu ci nekk ci loolu ñi nga xamante ni ñoo nekk ca marché boobu yàgg faa liggéey ñu ngi ñëwaat ci taarixu marché boobu nga xamante yàgg na ci Sénégal. fii maa ngi fi ñëw 69. ah waaw Thierno Birahim Ndaw bi muy tekkante ni maa ngi toog bu baax a baax a baax ndax 1934 lañ ko defar 33 34 boobu ba léegi nag dem na ba marché bi dafa vieillir quand même seulement nag monument historique la un monument historique on le détruit pas dañ koy retapé waat. waaw ah, man moom yàgg naa fi parce que def naa fi minimum 30 ans waaw non bañ koy door a ubbi moom fekk ma parce que loolu c'était depuis 1933 <laughs> waaw man dans les années 80 laa fi ñëw nekkoon xale doon euh, nekkoon fi ak sama papa xam nga di ja di wàcc di jàng di di wàcc di ñëw di ko fi xaar. bon ba ni ma fi toogee waaw voilà loolu la. ñoom ñi leen nakk dem nañ ba li nga xamante ni moom mooy seen sàkkuteef mooy rek ñu defaraat leen boobu marché ngir ñu mën a wéyal seen liggéey. historique bu dee historique bi moom loolu mooy historique bi mais bu dee nee li ñu fi jëlee bu yàggul loolu moom yàggul parce que deux 2013 la lakk bi mu lakkee 2013 ñu am ñu ñu nekkoon ci biir marché bi ñu jëlee leen fi yóbbu centre de course mu amoon alentour alentour bi léegi ñu war a defar marché bi ñu dem ci njiitu réew mi wax ko ko mu ne ma mu ne ñu dinañ la ko dinañ leen ko defaral. mais defar bi bu ñu koy defar dañ forcément ñi wër marché bi danañ leen fi jëlee. effectivement boole nañ ci parce que ñun ànd na nag préfet dem na kilifa diine yëpp dem na fa ñun it kilifa diine yëpp dem na pour pour que ñu am garantie sûre bu paree kenn ku ne ñu delluwaat la sa place ba nga nekkoon waaw. mu dem ba li nga xamante ni moom mooy moomeelu marché boobu am kenn si ñoom koo xamante ni yàgg na ci marché boobu di ñëwaat ci ki nga xamante ni moom moo yàgg moom boobu marché ndax acte trois de la décentralisation moom moo daal di jël boobu marché jox ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Dakar Plateau. Aliou Ndoye Aliou Ndoye mi la ne ndax acte trois bi moom moo changé fii moo changé les données du problème acte trois bi mooy. marché bu ne commune ba mu féete moo ko moom moo ko war moo ko mooy responsable bi ñu ne man de loolu laa gis keneen loolu la gis. non xam nga loolu dafa am euh, loolu loolu c'est un peu kii parce que bu dee ne terrain bi ci boppam terrain marché bi fu mu nekk tabax bi ak fi terrain bi nekk loolu maire de la maire de la ville moo ko moom terrain bi la moom maire de la commune. kooku cantine yi waroon yooyu la moom yooyu lañ daan fay maire de la commune lañ daan fay mais acte bu mu ñëwee dafa jox marché bi maire de la commune comme léegi maire de la commune maire bi maire de la ville bi li muy xëccu lépp moom suuf si lay xëccu fi fi terrain bi nekk mais xëccuwul ay lii maay defar lii wala defar la donc ñun maire de la ville lañ doon fay ak trois bi mu ñëwee maire de la ville lañ jox maire de la ville moo tàmbali liggéey maire de la ville moo ñu recevoir ne dañuy liggéeyal kon ñun amuñu parti pris fuñ far. ñoom nag ku ci nekk ci nga xamante ni moom nga xalaat ci boobule marché ñu yeesalaat ko wala ñu daal di koy andiwaat lu ci mënta am mooy ñoom nañ ko defaraat rek ngir gën a yokk kaaraange dafay liggéey. ñun suñu gis-gis détruit waaw. ndax ndax dafa yàqu waaw non non dafa màgget daal. dafa màgget boo nga di ko retapé waat bi mu toj toj lépp refeeraat ko muy c'est plus garanti daal. ñun ay liggéeykat lañu dañ ñu jëlee fenn yóbbu ñu fenn pour un temps léegi un temps boobu ñu toog fa ñu war ñu defaraatal ñu ñëw li ñu wax ñoom ñaar nañ waxtaan bi juboo ñu waxtaan ñu kii sinon état arbitré ku moom dëgg ñoo xam mais mu xool ñi nga xamante daal ñoom ñoo fi jëlee depuis deux ans. toog di xaar te metti na trop nag. marché Sandaga ñu daal di garder li nga xamante ni mooy xar kanamam wala daal di koy yeesal lu ci mënti am dinañ ko daal defaraat andiwaat loo xamante ni moom mooy gën a tax marché bi gën a ñoŋ ci ñi nga xamante ni ñoo fay liggéey wante mu mel ne fi nekk nii am na xëccoo bu rëy bu ci am ci diggante ki nga xamante ni mooy Soham Wardini ak ki nga xamante ni moom moo nekk maire bu Dakar Plateau ku ci nekk di xëcc sa boor ne yàq moom ba fi nekk nii ñi ngi waaye dem ci yoon ngir ñu daal di xool kan ci ñoom ñaar moom